ah dëj dëj dëj ah Thank ko am loo di wax Dégg nga noonu mekk mbokk internet ci Wassare sur bi de ba léegi ñoo ngi fii si xewu ndaxte bi gannaaw démb ba ñu fanaanee tey nag ñëwati nañ alors ñii nag bu leen gisee nga xam ne mooy équipe ñoom Marcousse gannaaw bañ defee plaque boo xam ne plaque bu am solo si ndaxte donc mooy noonu Poupée ñu ngi lay nuyu cousin Mario ñu lay nuyu ñu siyaar waaye si jàmm ñu ngi sant Serigne Touba bu wér wér di leen bëggee di leen delloo siyaar di am bu rëy rëy yéen parce que liggéey bi naaj na trop di ko rafetlu wér a wér xam ndaxte nekk xale Mario nekk xale ñoom ñaar ñu dugg tey si néegu sëy yan conseil ngay di jox. waaw xam nga àdduna moom dañ ne lépp xale dañ ne football xale wax basket xale wax bëre xale kon sëy tamit xale parce que ñoom ñaar nekk nañu ay ndaw yoo xamante ne su leen neexoon topp seen naf su bakkan ne seen live di live di live ba heure bu mu leen neexee mais comme dem nañ ba gis ni seen relation sérieux na ñu def six ans de couple foofu caaxaan amatu fa ñu dëgal ko sëy di wax ni rek ñoom ñaar ku nekk euh, jàpp ba mu dëgër ndax bëggante nañ lool ñun ñëpp loolu lañ gis te xam nañ looloo nekk seen seen xol waaw di amaat na contentement bu rëy di wax ci ndaxte loo xamante ne ndaxte moom malgré miinante wuñ carrément mais xamante nañ sama xarit la mooy loolu parce que Delafosse la doon jàngee sama sama koñ la nekkee Delafosse daan na ndekkee tamit sama gàlle si restaurant bi kon xam nga ni kook xamante nañ mu doon xale bu yaru xale bu teey am lépp lu jigéen am am na ko macha allah rafet na macha allah yaru na jox na cër gars daal wàccee na boppam simple na di wax tamit si Mario tey jii sama deret la sama cousin la. yàlla def na ni su ma nee sax tey tey daanaka lañ gisante démb démb bi ma ñëwee lañ gisante dañ daan dégg nii rek dégg Mario yooyu noonu yàlla def tey ji mbaaxaayam ak simple am ak yëg-yëgam ak baay faalam moo tax ñu jaral ñu ñun ñu déplacé wu ñëw ci bësam parce que dañ nit ku la yëg da nga koy yëg dañ ne nit koo xam xolam dafa rafet bëgg ay mboqam da nga koy yëg man looloo tax ma déplacé wu ñëw ba ci xewam parce dafa doon grand bu cool quoi grand bu gëm boppam bu nangoo fayet nangoo liggéey te góor yàlla dëgg day nangu loolu fas jom ñun ñëpp loolu lañ gis ci moom moo tax mu jaral ñu ñu ñëw ci xew bi di ñaan yàlla na sëy bi barke bañ am ci ay njaboot yu barke lool daal la di ñaan daal di wax ni am nañ contentement bu wér a wér a nga bokk ci équipe Marcous ku la xam ku xam Marcous des nga dem jouer rôle policier donc nga def benn planque boo xam ne planque bu am solo Sénégal yu ah mais. bu ñu wax ne plan Marcus moo ngi taxaw mais nangul feeñ léegi. non loolu moom xam nga mooy loolu quoi comme DG bi moom mooy loolu jarul ñuy kii daal yaa ma gën a xam parce que tey jii nii mooy loolu dëgg la ñi ngi équipe bi ñi ngi joué ak yooyu noonu quoi mais xam nga booy da boobu dañuy bàyyi mu tëmb quoi waaw dañuy bàyyi mu tëmb ndax es bi nii yaa ma gën a xam daal. gisee Sénégal yu bëri di si am ay réaction yoo xam ne peut être yu négatif ak yu positif nan nga koy dundee a tant que yow cousin ma cousin euh, euh, naaw sax jëkkër ndaxte. kom kii prank dafa doon loo xam ne affaire yi àdduna amul solo quoi ay leçon la rek dañuy jàngalaate rek dañuy jàngalaate rek jii ku ko seetaan day xam ni kat waaw lii nii la di nga am loo ci mën a jàngat yooyu noonu parce que tey jii nii à 100 ñëpp ciy bëgg mooy loolu. mais fii Sénégal moom booy def lu baax foo jaar dina am ñoo xam ne dañ lay sikkal loolu mënul ñàkk tey jii nit foo jaar da ngay am noonu nit foo jaar da ngay am noonu parce que ñëpp bëgg la loolu baaxul faaw nga am ay noonu pour nga fas jom pour nga am courage faaw nga am ay noon pour nga am courage carrément mais su ñëp ñëpp bëggee rek affaire bi day yomb trop warul yomb ko noonu la fa demee mooy loolu. jaajëf frère bëggee maam. nanguwul feeñ mais je le comprends affaire bi mu toll la moo tax ñi tamit ñëpp si équipe marche bu ñu ngi lay nuyu. comédien la. mais. <laughs> yow doo si wax mais garaaw moom si añ bi la jëm. <laughs> comme Faye yow fay baax di leen jaar di leen wax ndaxte ak Mario. waaw bon. man li may def rek mooy ñi di leen ñaanal sëy bi doon sëy bu sax ta barkeel def ñu am doom bañ dem ba fekkee njëriñ yi maam njëriñu doom yooyu noonu ndaxte xaw ma xam naa ko nii rek célébrité la mais Mario Baye Fall la et nañ mu yombalal ñu liggéey bi macha allah euh, xam nga nit moom boo koy boo koy seetal dara da fekk ay mbokk mbokk olof Ndiaye moo ko wax ñëpp ay mbokk yëpp nañ Mario nit ku baax la. bi nga xamante yàggul mais man tamit gis naa ne Baye Fallou nit ku baax la loolu rek laa am ci mën a alors yow yaay porte parole Marfous. non du ma porte parole Marfous. Marfous moo ko moo ngi taxaw. mais loolu nagul fee Pape Moussa bañ ko yaa ngi ñuy filmé te bañ ko filmé. alors def kay def mooy borom parole bi day ruube rek man du ma ci dara man dama cay ànd nii rek. mais noo gisee planque bi nu mu demee. non planque bi moom noo ci waaw waaw moom da ngay dem day julli gi ki def planque bi ma dem sama dom lah, mu nekk ay kàddu yoo xam ne ay kàddu moom soxna si vraiment ma man de wax dëgg yàlla nit ku baax da laa xamee peut-être nag bu defee waxee dara wala mu lu lu ñaaw wala dara tamit mer la rek te mer day nekk noonu boromam ah wax dëgg yàlla ñëpp seedal nañ ne nit ku baax la tamit xale bu yaru la xale bu yaru la man du ma naa feex li ni ñi wax rek laay ñëw waxaat ñi ko jege li ñu wax laa mën a waxaat parce que man jegewuma ko quoi loolu dong la nee na jaajëfal merci beaucoup. merci beaucoup ah. comme que Marfouz daw na garaawul Marfouz ak kay bu nga ko jël PC boo ko bëggee <laughs>